sëriñ Cheikhouna Gueye njabatug alaaj sëriñ Gueye yëpp tuwaar fa kàll masalla ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di la ñaanal ci liggéey bu am solo bii nga xam ne si ni di liggéeyub sëriñ Touba nga ànd kook ñoom àndi nu rafet nee na ñu ngi ci sant yàlla bu baax seexu naa Gueye mii nga xam ni ah moom la ne xoole alaaj Serigne Gueye Badara yàlla na yàgg ak rakkam yu baax yi ñoom ñépp bootu nañ ci ginnaaw kër euh, fii ci ginnaaw seexu naa kenn ku nekk yëkkati doom duggal ci biir kàddug seexu naa di la ñaanal sa borom guddal saw fan te wéral say cër ci àggasab taxawaay te barkeel sa kàddu ci barkeb Sëriñ Tubaa bég nañ bu baax léegi nag ñu maye teewlu dayre bi nga xamee ni si nii dan ko yàgg a baaxe nan ko daan defee muy daayira Badar ñoo bëgg sukk fii ci kanam sëriñ bi joxe seen addiya ñun ñépp ñu bokk maase diglu ko ah ci ndigalul Njaga Caam ca mu Njaga Caam jiite ko ñun ñëpp ñu bokk maase diglu ma wàcce sama kàddu jox Njaga Caam mu yëkkati kàddum ci tur daayira Badar asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaare baax a baax waa daayira ahlu Badar ñoo leen di siyaare di siyaare sëriñ bi di nuyu mbokki jullit yépp ak mbokki taalibe yi di sant nag ndax ñun ñooy ndeyi daayira yi bépp daara bu fi ñëw rek ak loo fi mën a def ñun nga ko defal kon ñu ngi sant waa daayira yëpp bépp daayira bu daje fi rek waa daayira Badar ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di xam ni gis nañ liggéey bi gis nañ pas-pas bi ñu dikkee ak yéene ji kon ñu ngi sant ñëpp di ñaan suñu borom bépp daara bu fi ñëw rek lépp loo fi def suñu borom yokkal la ko bu déenee nga man lopp loolu ñun waa daayira bi nag ñu ngi sant bu baax a baax di indi sunu liggéey ci sëriñ bi fesee ne koo jébbale sëriñ bi nga di sàkku ci yow ñaan ba li nga xam ni moom lañ indi ren bu déwénee ñu indi lu ko ëpp lu baree bare bare waa daayira bi nag sant na lu bu baax a baax a baax am nañ tawfeex am nañ yaakaar am gu yàqin ak ngëm gu wér ci li ñu def nii ci lu baax lañ ko def sëriñ bi nag li mu ne yaakaar naa ni kenn ku nekk ci ñun rek war na laa dolleeg soññ bu baax a baax a baax ndax barab bi mu toog lii kat lu yàgg la ca saa su nekk muy gën di jëm kanam kon ñun ñi nga xam ñoo nekk ci kippaaram ca ñun duñu dara ca doonunu lenn ëmbunu dara kon warunoo tëdd di nelaw nan gën a góorlu sëriñ bi ñun waa Daahira Badar ñoo lay jébbal sunu liggéey di ci ànd ak mbégte di ko xeeb lool nag di sàkku ci yow ñaan nga ñaanal ak wér ak xéewal yu yaatu di ko sàkkuwaale ñëpp nag mbokki daar yëpp ak bépp jullit boo xam si ne ñëw nga ci barab bi rek la koy sàkkuwaale nga defal na ko baa xam ne at mu jot bu ñëwee wala bés bu set sax ñu man lu ëpp li ñu def nii ñu loolu na lay sàkku di la ko dagan di ko boole ako xeeb ak cant goo xam ne ñu ngi la koy def ak mbégte gu wér a wér gun ànd ak yow di ñaan mu yàgg lool nag jërëjëf sëriñ bi astaghfirullah alhashim wa atub إليه من شوائر ومن خيوب أتغفر لا الهشيم وأتوب إليه من شوائر ومن خيوب شعلت بأقوى جعله من جملة المناهي تبت له من جملة السقائر مع الكبائر ومن دمائر خافر لي في كل ما تقدم وما تأقن وما بينهما فإمني للما وسدني حلما وعملا وادبا وفحما ربي لكثف الحلوم نافحا وجنياتي من شقاء مانحا اكشف لي الاسرار والقامدا يا خير من كثف جرا خامدا لجمع جميع ما تفرق لدى قتي من الخير وثفي الخلدام ليق لدى تفكر أحثم يا ربي بكن وتاثما خلمي يا هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والعلاوة بارك لهما في حياتي واجعل فؤادي وطنا الآيات عبلي كوني بذر كل من يتوب ولي ثوائر أبي مع الخيوب عبلي كوني بذر كل من يتوب ولي ثوائر أبي مع الخيوب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci turu sëriñ naa lañ leen di nuyoo di leen ziyaara di leen ndokkeel bu baax a baax ci bis bi di ñaanal yi nga xam ni daaw teewoon nañ bis bi taren suñ boroom dogal fekkiwuñ ko ñoo ngi leen di ñaanal ci barkeb guddi gi barkeb bis bi barkeb bi ko daan taxawal suñ borom yokk seeni leer te taasuñ seeni barke mën nañ cee lim waaye mën nañ koo tënk noonu rek comme waxtu yu xat na ñu ngi leen di ñaanal baax a baax suñ borom yokk seeni leer taasuñ seeni barke suñ bi nag mi ngi sant bu baax yéen ñi nga xam ni waxtu wu nekk yéen a ngi wane seenu jàpp ci moom yéen ngi wane seenu taalibe ci moom bu dee mbokk gi itam yéen a ngi koy doxal ci moom lépp ngir juróom wa ngir dëkk bi lépp gis na ko lépp nag moom ma ko waxal boppam xam naa na ma koy na ma koy waxee sax mënee ma ko noonu waaye mi ngi sant ñëpp tàmbalee ko ci cant gi ñi nga xam ne ñoom la bokkal baral ku nekk xam na yi euh, sëriñ génn meloon ak ay mbokkam mu ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon sëñ morassa ak ñi nga xam ne ñoom ñoo la bokk leen suñu Omar ak njabootu suñu lay géey ñoo ñëpp teew nañ ci dëkk bi ànd nañu suñ bi liggéey bi sëñ bi nag mi ngi leen sant ci loolu mi ngi leen ci gërëm nga xam ne ñoom ñoo bokk liggéey bi ñoo bokk ci tam dëkk bi kenn ku ci nekk ci ñoom seenu njaboot bu ko waxtu yu mayoon kenn ku ne dañ lay tudd waaye na xam bu wér-wér ni sëñ bi sant na leen gërëm na leen noonu itam lay sant ñi nga xam ni ñoo njabootu Sëñ Mor Talla nga xam ne ñoo ay dëkkandoom ku nekk xam ne Sëñ Mor Talla ak Alaaji Sëñ Géey waaye Sëñ Seexuna itam noonu rek lay doxalee ak njabootu Sëñ Mor Talla gi ñu bàyyi ko xel lool cër bi ko xam ne suñu borom jox na ko ndax ànd Alaaji Sëñ Géey Sëñ Mor Talla loolu taxoon mu noppale kilifteef gi Alaaji Sëñ Géey koo joxoon waaye ndogal gi nga xam ni suñu borom dogal na ci Alaaji Sëñ Géey itam Sëñ Mor koo nangoon moo ànd ba rafetoon lool loolu itam mooy wéy ba ci diggante Sëñ Seexuna ak njabootu Sëñ Mor nga xam ne ñooy dëkkandoom ñoo nekkandoo ci dëkk bi diggante bu rafet la boo xam ne yu bari bari mënees na ko ci wax waaye ñu gàttalee ko noonu rek ñoo ñëpp suñu seexu naa mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di sant mi nga mbégte ci seen doxalin ak moom noonu itam lay sant ñi nga xam ni ñooy njabootu alxaaji Serigne Gueye ci góor ñi tàmbale ko suñ muur Moustapha mii ci wetam wax na ma moom suñu seexu naa taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ak moom posture bi nga xam ni ànd nañ ko ak moom lépp loo xam ni taxaw na ko ci dëkk bi moom ñoo ma koy ànd sëñ bi sëñ Seexuna mi ngi lay sant bu baax mi lay gërëm gis nañ yitte yi ci dëkk bi gis nañ yëngu yi te lépp itam ngiru taaral dëkk bi rek la ak lépp loo xam ni day euh, wóyal liggéey bi nga xam ni alay si ngi bàyyi woon na ko fi képp koo xam ni teew na ci dëkk bi boo fi duggee di nga xam ni fii liggéey waa ju baax fi sotti ko bëri na ay dëkk yoo xam ne ñu ngi leen di romb dañëw waaye boo dikkee ci dëkk bi di nga xam ne fii kat seeni borom sàggane wuñ ko gis ngeen kër yi nga xam ne sëñ seexu sëñ seexu naag sëñ Moustapha ak sëñ jiili def nañ ko fi mënees na mënoon nañ koo defee ci yeneen dëkk te yelloon na fa itam te mën naa bu dee soxlaat foofu lañ koy gën a soxlaat ndax fii daanaka dañ fi ñëw rek dem waaye la ko waral ngir jëmmal dëkk bi ak jëmmal seen liggéey waajur wa moo tax ñu ko fi def ndax alal si ngéey ne woon na dëkk bi du gent te day jëm kanam loolu nag njabootam gi xaar ñu ci kenn jamono ju nekk ñu ngi wane seenum cofeel ci dëkk bi ñi ngi wane seenum taxawaay ci dëkk bi loolu nag suñu seexu naa mii mi ngi leen ciy sant mi ngi leen ciy gërëm liggéey boo xam ne itam kenn sumbuna ko fi daanaka moog yow koy ànd ba mu yegg kon ñoom itam euh, suñu seexu naa mi ngi mi ngi lay sant mu Moustapha ci sa taxawaay ci sa yitte ci ànd gi nga xam ne ànd nga ko moom ndax li jiitu ci ki nga xam ne yéen a bokk ndey ak bàyyi mu jël boppam jébbal la su dugg ci dara te waxula ko te fekk naa fa mu jébbaloo suñu seexu naa bi yàlla ci suñ ngay euh, demee rek fekk mbooloom bari daanaka ci moom lañ ñëwoon euh, ngir boobu suñu seexu naa mën naa am naa ñëw waaye bi siñ seex naa ñëwee dafa boole lépp ak jëmmam jébbal suñu seex naa loolu nag lay wéyal ba tey kon suñu seex naa ngi lay sant bu baax a baax mi ngi lay gërëm noonu itam looy wàcce ba ci euh, suñu fàllu mii suñu seex naa itam wax na ma ni ma gis nga ni muy taxawee ci waañ wi nga xam ne moom itam nanguta wane daraam daanaka day seet ci bis rek daanaka doo xam ci yëngu te fekk itam taxawaay bu rafet a lay taxaw ci dëkk bi di ko taxaw ci bis bi kon suñu seexu naa mu ngi lay sant bu baax a baax yow itam suñu fàllu di la gërëm noonu itam léegi gërëmee suñ badar mu yëpp gis ngeen taxawaay bi nga xam ne moom lay taxawee ci alxuraan yi itam at mu nekk suñu seex naa ngi koy sant bu baax di ko gërëm noonu itam la sante euh, suñu abdul axat gis ngeen taxawaay bi nga xam ne am na ko itam ci euh, yi nga xam ne danañ koy jëfandikoo te gan mënu koo ñàkk at yi yëpp moo ci teg loxoom di ci liggéey sëñ bi nag gis na liggéey boobu mu ngi koy sant bu baax di ko gërëm li war a loolu mooy kenn ku ci ne ci njaboot gi daanaka dangay am foo xam da nga koy féete nga daanaka doo gis sa bopp sax da bëgg rek nga xam day neex day neex sëñ bi tey ab sagam nga cee taxaw kon nag sëñ mi ngi leen sant bu baax leen gërëm sëñ Abdul Xaadir itam sëñ bi wax na itam ni ma maa ngi koy sant baax di gërëm yitte ju kawam ci dëkk bi ci bëgg gi nga xam ne bëgg na ko dëkk bi te lépp loo xam ne am na ko itam ngir njab ci njaboot gi la jëmaat ak ci dëkk bi ñeneen itam gis nga base bi taxawaay bi ñu ci am ndax base bi moom sëñ Abdul Xaadir dama cee wax wax ju am pëseef dana ma ren daal dama bëgg ñu wut base bu rafet rafet ju méngoog jamono ni kër yi kat bu ñu ko defaree nag ba mu rafet te base ba demee neen dañ mel ne suñu bopp ñu ñor kon ni kër yi mel na ko base yi mel kon ko xool base nga xam ne nag ay daanaka ay junni defar ko ay millions la waxum laa transport ndax base bu toll nii am na jamono xam nga fi ñu rafetaay base ñu bari xamuñ ko waaye base bi amut poto fi mu ne ay poto yi digg yi am ci base bi ko xam mel ni koy lëjal addiir ah, amu ci <laughs> waaw loolu nag rafet day wane rafetaay baas bi sëñ bi mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci sab taxawaay si yitte lépp loo xam dugg nañ ci tam man am naa ci lu wér ni noonu la ci ànd ak sëñ Seexuna lépp bëgg rek da cay jëm euh, da taxaw kon nag sëñ mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci sa yitte ju kawe ci sa jàpp gi nga xam ne jàpp nga ko ak bëgg gi nga xam ne bëgg nga ko dëkk bi loolu am naa ci ay firnde yu wér wér nga xam ne moom ni nga mel ci dëkk bi sama damaa yëm maa ngi ñi ngi lay sant sëñ baa ngi lay sant bu baax dem di la gërëm noonu lay wàcce sëñ Omar mii euh, wàcc sëñ Seex wàcc ci sëñ Tuuba sëñ Abdourahman yaakaar naa ko ma fàtte itam euh, ñu xam daal sëñ bi dañ ma sax xawma lu may sant njaboot waaye daal nag ma leen santal ma itam daanga xawma lu ma ko defee damay lim di dem rek waaye sëñ baa ngi leen sant bu baax di leen gërëm noonu itam lay sante soxna Ami géey ci taxawaay bi nga xam ni am na ko ci bis bi daanaka sax mën naa am daan gisee fu ko ci baas bi euh, tali ko walal itam muy toppatoo gan ñi rek kon sëñ bi itam mu ngi koy sant di ko gërëm noonu la itam lay lawee ba ci rakkam yépp yu jigéen ñi ndax ñoom toogunu rek daani bis ba suñu bis waajur la suñuy maga nga fa yu góor suñuy rakka nga fa yu yu góor buñ demee dal kër diw wala kër diw déedéet buñ dikkee dañuy indi seeni xarit seeni mbokk indi seeni alal ànd ak seeni borom kër lépp lu jëmmal dëkk bi dañ ci nekk kon soxna yi suñu seexu naa ngi leen di sant bu baax leen gërëm gis na jàpp gi nga xam ne jàpp ngeen ko ko gis na jàpp gi nga xam ne jàpp ngeen ko dëkk bi ndax moom loolu rek ko ñor bi suñ bàyyi ko daa ñëw toog ci dëkk bi luy jëmmal dëkk bi ak di ko taaral ak di ko jëmale kanam rek moo ko ñor noonu itam lay wàcce ci taalibe yi taalibe yi suñu seexoon ak leen sant di leen gërëm di leen ñaaral li nga xam ne mën ngeen ko ren boo liggéey itam ngeen man lu ko gën a kawe muy daayira ahlu badar yi fi teew yépp ñu tàmbalee ko ci daayira bii nga xam ni ñoo doon jébbale seenu liggéey te suñ njaga caam yoroon seen kàddu nga xam ne ñoo njiitul daayira yi suñ baa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal itam yéen ay ndaw ngeen di wuti bàyyi fi dëkk bi waaye seen xel itam génnu ci dëkk bi suñ baa ngi leen di ñaanal baax li nga xam ni am ngeen ko yéene ci dëkk bi suñ borom matale ko noonu itam lay wàcce ci mbooleem daayira ahlu badar yi ñi nga xam ni Euh, ñoo nekk Géejawaay ak Touba ak Kaolack ak sëñ bi sax wax na ma léegi ne ma am na yeneen daayira ahlu badar yu yu sosu muy daayira ahlu badar bu Kër Maxaali daayira ahlu badar bu Kokki daayira ahlu badar bu Njaay jàmm ñan ñoo ne itam sosu nañ bokk ci liggéey bi ànd ak sëñ bi kon sëñ bi mu ngi leen a sant leen gërëm di leen ñaanal fii daayira ahlu badar yi yegg yëpp seen daayira boobu yegg fa te noonu itam jàpp naa noonu lay tasaaroo ci tund yëpp fu nekk dina am daayira ahlu badar ndax bis bii sagub tund wi la sagub diine la sagub yoon wi la mboolem daayira axlu badar yooyu suñ baa ngi leen di sant di leen gërëm nee na itam naa ko santal Mamadou Assane Diop ci coono yi nga xam ni am na ko ci courant bi ngir mu ñëw ci dëkk bi ndax installé nañ ko ba nopp waaye dafa mel ni tàkk yi nag day euh, xaw a am ab diir siñ bi nag nee mi ngi sant Mamadou Assane ngir liggéey diggante boobu lijjanti bi mu doon lijjanti ngir mu tàkk fépp fu mu dem rek di lijjanti dinañu ko moom Mamadou Assane ñëw na fi amoon na ci ab taxawaay kon nag taxawaay boobu sëñ bi xeebu ko mu ngi koy sant di ko gërëm yaakaar naa ne daal euh, di sant itam ay waajuram ñu jigéen ñi nga xam ne ñu àndoon ak Alaaji sëñ gi liggéey bi tàmbale ko soxna Maguette Jaxate soxna Oumy Ndiaye soxna Ndiaye Diop ak soxna yëpp sëñ baa ngi leen di sant di leen gërëm ci ab taxawaayam ndax moom jëmmam ji bi fi sëñ bi bàyyi ko ku ko xool rek jëmmi Alaaji sëñ gi ngay gis gis si moom waaye tam moo matee taxawaay bi sëkk liñ ci gën a neex rek muy dëkk bi nga xam ni mooy suñu sas ci suñ Tuubaa daaw neewoon naa bu Sëriñ Tuubaa yoonam bu doon ab toola ñunu sunu sas mooy Badar jàpp naan nag bàyyi saw sas mu booy wala bàyyi saw sas di dem di bàyyi la keneen dara du ci ful la kon nañ gën a jàpp dëkk bii te xam ne cër bu ñu am ci suñ Tuubaa suñu Omar suñ Tuubaa la daan liggéeyal si moo taala nee na ma ñi nga xam ne ñoo daan yóbbu addiyee ji ak ñi ñëw dañuy tasante ci yoon wi lépp loo xam ne nit jox na ko rek danaan euh, nañ ko yóbbu Sëriñ Tuubaa képp koo xam ne itam nekk nga ci tund wi itam amoon yitte boo ko waxee Sëriñ Tuubaa naa demal Sëriñ Omar wax na ma ci ay góor yoo xam danaa ma diw mooy maami diw diw mooy maami diw ba mu demee Sëriñ Tuubaa ni ko defal ma naa nga sëñ bi dani ko demal ci Sëriñ Omar kon mu nekkoon ci dëkk bi itam daan bay di jébbal Sëriñ Tuubaa nekkoon ay boroomi xam-xam nekkoon ay kilifa nekkoon ay wàlliyu kenn sikk sàkkul loolu si moro sa itam nekkoon fi daan liggéeyal sëriñ Touba dundam gépp mu jeexal ko sëriñ Touba mu sa bëgg dara njabaru sëriñ Touba gépp fekk ko fi kon dëkk bii bërëb la boo xam ni bërëbu euh, ca bërëb yi daal la bokk ndax njabaru sëriñ Touba gi duñ demanto duñ doxantu itam te ñëpp ñëw nañ ci dëkk bi ngir siyaare sëriñ Mor Asta ngir siyaare sëriñ ñoom itam luñ mos am jox nañ ko sëriñ Touba seen ma seen waajur itam doonoon ca kàngam ya euh, sëriñ Touba seeral na ko al mashhuru bi zuhri wala warax ci lettre bu mu ko doon bindal dañuy sëñ Badar mu yëpp day ku siiw la ci dëddu ak ak sàmm ñee nañu sax am na bis boo xam ni daje nañ ci sarax ndax sëñ Tuubaa da ko bëggoon lool fonk ko sëñ Tuubaa daan ni ca sarax sa laajte ana sëñ Badar mu yëpp xanaa nekk fi ñu ne ko axaa kay ma nga bërëb sàngam ci dal yi mu dem ba mu demee ñu ne ko de daa min de génn ci biti mel na nag mi nga waaj ngir dellu dëkkam bi mu génnee ñu ne ko sëñ Badar mu day mi ngi noonu di pëndal aw fasam di dem moo ki suñ tubaa neen dama ne teg am yéene topp ko ngir sopp gu ma gu ma ko sopp waaye suñu borom nag moo ne ma déet yow nag moom amoo droit topp ku dul yonte bi sallallahu alayhi wa sallam looloo tax topp ko waaye kooku nag suñ tubaa nag am na cër waaye kooku am na cër moo tax léeg-léeg nga ñaa suñ tubaa topp na diw di waaye boobu wuuteekul yoon murid te boobu suñu borom da ko aaye topp ku dul yonte bi sallallahu alayhi wa sallam kuy dem rek nga am yéene topp ko suñu borom aaye la ko waaye cofeel googu laa moon ngir topp suñu badar muyib ngir gis ko ko loolu nag day wane euh, cërub suñu badar muyib ak fi ko suñ bi tegoon waaw day ba wane cërub suñ badal muy ak fi ko suñ bi tegoon waaye nag mu ni woon ak njaboot yi itam leer gii di woote ci penk bi bu wootee bu leen fa kenn jiitu moo tax ñu jëloon seen bopp jébbal ko sëñ Tuubaa suñ badal muy euh, suñ badal mora sa dem na ay yoon yoon xumaak fekk na suñ Tuubaa fu nekk lu mos a am jox ko suñ Tuubaa kon loolu mooy dëkk bi alay suñ gi itam dikk xam cër bi ko suñ borom defal lépp lu mu am ci badar itam loolu rek la lépp lu am ci yoon wi itam loolu xam na ni ab cër a am fii mu nangu loolu téye ko ba lépp loo xam ne cër la bu nit ku baax di am suñ borom may ko kon nañ gën a fonk bërëb bi gën koo euh, toppatoo suñu seex naa itam lépp lu mu am itam looloo ko may bi suñ bi jógee daanaka boobaa fu ne suñ bi am na fa kër fu nekk suñ bi am na fay taalibe fu nekk am na fay couleur waaye daa toog ci dëkk bi waaye tey ku xam ne lépp fekk na ko fi te lu nekk na ko fekk incha allahu rabbi ñu ngi koy ñaanal suñ bi daal mi ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal